ñetteel bi yoon comité scientifique de la société sénégalaise de néphrologie di amal bii les cours jagleel ko ay réew yu bëri si dendu Afrique liñ si jublu mooy tàggat néphrologie yokk seen xam-xam si lu ñeel pajum feebaru roño dafay am ay borom xam-xam yu seen euh, ñu màcc seen xam-xam màcc ci wàllu dialyse euh, jóge bitim réew ak fii ci Afrique dañu ñëw pour tàggat sunuy docteur ak suñuy infirmier ak ay infirmier ak ay docteurs yu jógee fépp ci Afrique soowu jant ci wàllu dialyse maanaam nan lañ koy defee ak nan la ñuy euh, fexee ba complication yi nga xam si bu ko malade bi amee te fekk mi ngi def dialyse ñoom ñu mën ci indi euh, kii euh, faj waxtaane nañu ay ponk yu bëree bëri ci bile cours international ponk yu mel nii ni hémodialyse paj mu cher mi ak naka la ñuy def rek bëgg na yaatal li di dialyse péritonéale parce que dialyse dafa cher at mu jot bu fekkente ni dangay def dialyse war nga dépenser fukki million ak ñaar pour dund benn at. waaw léegi nag ñun ci biir cours bi dañu indi yeneen technique yoo xam ne sii dana gën a oyofal paj mi mooy comme dialyse péritonéale kooku beneen dialyse la boo xam si laajul machine yi nga xam si moom la hémodialyse di laaj. feebaru roño tàmbali di am doole bu baax fi si réewu Sénégal nee nañ téeméeri sénégalais yow jël juróomi ñoo ngi dox ak lu ni mel yenn saa sa duñu xam ne dañoo opp li mu néphrologue yu néew yi am si biir réew mi lu ni mel it bokk na si gàllankoor yi di jafel paj mi. am na ay jéego nag yu ñu def ndaxte boobaa euh, boobaak léegi ñaar fukki at la ñetti néphrologue ñoo nekkoon ci réew mi léegi nag am na ñeent fukki néphrologue région euh, fukk ak ñeenti région wu Sénégal yëpp bu nekk am na néphrologue mais xam nga aussi buñ ne dëkk bu mel ni Kédougou wala dëkk bu mel ni euh, Tambacounda am na benn néphrologue xam nga loolu tamit wàññi bu néew la. réew yi dendu Afrique yi war nañoo def ay jéego yu am solo si lu soxal wàllu prévention maanaam pexe yi ñi lal ngir maytu bi la feebar ak it formation di tàggat spécialiste yi di yëngu si wàll gi bu ñu sukkandikoo si waa SOSENEF.